si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test juróom-ñaar ñoo ñëw positif bon ak ñoo am jàngoro ji ci juróom-ñaar yooyu juróom yi cas contact yu doon suivre la ñaar yi nekk ay cas communautaire mooy ñu am jàngoro ji te kenn xamul fu ñu ko jëlee mën nañ leen yëgal tam ne ñeenti patient yu newoon hôpital wér nañ ci bésu tey bi danañ leen génne ñi nekk hôpital ñu leen di faj ñi ngi yëg tan bu baax ba mu commencé ba léegi ñetti téeméer ak euh, ñeent fukki ñaar ak ñaar yu kaala ñu jot fii ci senegal man ko déclaré si ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar yooyu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett nañ ci ñaar génn nañ ci àdduna kenn évacué nañ ko bon nag ci suñu hôpitaux yi tey ñi ngi fay faj téeméer ak ñeent fukk ak benn patient ñuy wax ne bésu tey bi mën nañ wax ne lu bees lu ñu jaaxal taxaw na su suñu xeex bi contre coronavirus ñu war leen ko yegge ku nekk ci ñun war na taxaw am taxawaay bu bees ci jaxle bu bees boobu ñu am li ñuy wax cas importé muy kaabu bu bitim réew mën nañ wax ne téye nañ ko bi ñu tëjee frontières yi li ñuy wax cas contact suivi mën nañu wax ne maîtriser nañ ko parce que képp ku ko am danañu la ber man la toppatoo ba doo faagagal kenn mais nag tey li ñu jaaxal te jaaxal ñu dëgg mooy lu ñuy wax cas communautaire mooy loo xamante ne xamuñ fu mu nekk mu ñuy yoot ñun ñëpp te man ñu jàpp ci bésu tey bi am nañ si fanweer fanweeru cas communautaire génn na Louga génn Saint-Louis génn Ziguinchor génn Touba génn mbuur génna Thiès génn Kër Massar génn Diamniadio génn Rufisque génn Pikine génn Thiaroye Gare génn Yëmbal Sud génn Mbao génn Médina génn Gueule Tapée Fass Colobane génn Plateau génn Golf Sud génn Wakhinane Nimzatt génn Ndiarème Limamoulaye génn Yoff génn Mermoz génn Parcelles Assainies génn Pikine Ouest génn Hann Bel-Air génn Derklé kon nag bu ngeen seetloo mu ngi ñuy wër ndam situation bu bees boobu nag képp kuy per de famille képp kuy leader d'opinion war nga taxaw pour que cas communautaire boobu ñu taxaw si mu génn réew mi ministère la santé et de l'action sociale mi ngi digle pour que ñu mën a takk masque yi bu baax surtout ñi dem ci bërëbu yi xamante ne liggéey dafay am comme marché yi comme transport en comme yi comme lieu public yi may wax ne maa ngi remercier bu baax a baax taskatu xabaar yi di remercier administration territoriale bi ci turu personnel de santé yépp ñi ngi leen di remercier di wax ne nañu taxaw bu baax pour respecter consignes yëpp pour que Covid 19 bi mën a génne suñum réew bi ma paree loolu nag dama bëgg a introduire monsieur le ministre Mansour fay bi xamante ne moom mooy ministre du développement communautaire mu ñëw pour waxtaan ak yéen ci sujet yoo xamante ne sujet yu am solo la ci xeexu Covid bi maa ngi leen di remercier bu baax.